ngi fii tey Manila war a def nag face to face ménagère yaa ngi ci kanam tuuti si dinañ leen wan li nga xamante si nii mooy signature yi nga xam mooy lëkkale promoteur bi ak ménagère bi ak mbër mi dinañ leen ko toppal leen li nga xam ne mooy xas-xas la bi am diggante bëri waaye toppal leen tamit li nga xam mooy kan lay tukkee ci promoteur bi bu defee rek ñu ñaanalante ba yeneen incha allah rabbi kon dañ naan coow nañ ci biir ak seen soppi sekk mbaa mbokk yi leen ñu ngi fii ci Madiba ak la promoteur de la capitale du rail ñu ko xam ci Sidi Diakhaté mu décrocher combat yo xamni ne car macha allah na na lu ci siranti na waaye na na amati na nga xamni na kuy nawlem ci lamb ko bëgg ko décroché na lamb ji nga xamni kep kuy promoteur ko ko ci diggante metro bu noonu jobaas ak nga xamni ne mooy jaxaw bu école bu jaxaw waaye yamu ci lool xala bi nga xam mo lëmb réew xala bi nga xamni ne car macha ku jël avance am do nelaw muy Pambay ak Samb wala mi nga xam ne moom bu ñëw ci góor waaye ku ñam góosam wala nga ñam droit am li nga dem kër jox ko ki nga xam ne moom ku ëllëg avance am doon ne la muy alaaji gaynde bu ko gis a waajur ak moo tàmbay ambulance mbokk yi Serigne Diakhaté jël na lenn ci nekk nag jox na li nga xam ne sa avance li nga xam ne si nii mooy ménagère yi ngi toog sama ginnaaw waa chercheur yi ngi toog sama ginnaaw du ma guddal da nga jël kàddu bi jox ko Assane Fall le secrétaire général permanent jox bi kàddu gi mu dugg ngeen waxtaan ak yéen ba ñu ci face to face bi quoi. à tout euh, ngi nuyu Abdoulaye Kourou. di leen gërëm di sant ci bi ngeen teew fii tey ci bi nga xam ne mooy Madina. Euh, promoteur si ngir euh, taatit ni contrat de si ay mbëri yoo tey dañ ko war a bëri le 8 juillet. si le président du CNG de Thiès monsieur Mbaye Sy Ndiaye sa xarit mu ngi lay la sant di la gërëm ci li nga jàppale nit ñi donc euh, parce que génn nga fi dem Dakar nga xam ne ñu bu baax di sant di la ñaanal euh, fi nga bëgg a xam ak la ci euh, nga xam tey jii su fekkee ni bëri mën nañoo toog te duñu sotti manager yi manager bi tey di Mbaye Ndiaye di nga ba Dakar ngir topp mbërëm loolu nekk na lu rafet loo xam mën nañ si d' accord ni mbër euh, ak manager jaxasoo nañ jaxasoo boo xam ne sax ñun bokkal day bay jaxasoo ndax suñu xasee ba ñëw ci CRG ñun xamatuñu ki nga xam ne ba bokkal day bay mais dañu laajtee li ñu laajte mooy manager anam te su loolu dañu dañu naan ana sa licence donc kon kooku la ñu xam moom mooy xaatim këyit yi nga xam ne moom la ñu d' accord ni moom mooy nga xam ne moo war a ak donc kon ñu

réussir bi fi dajale fii ci restaurant Ndaaru bi di baax ma di baax mu si jógee di nuyu collaborateur aussi di toog yëpp mën naa leen di xott dafa gudd di nuyu waa di nuyu waa CFC jàllale ko ci Assane ak ñi mu àndal di nuyu bëri fi teew yëpp di nuyu sama mbokk ménage ma fekk am na ñoo ma dara ci bëccëg ba léegi ñu may ñu may toppatoo li ma kii quoi mais amuñu ataay amuñu café loolu lu ma jaaxal te su ñëwee Dakar dama leen toppatoo dafa gi nag lépp lu mu waroon ak si def nañ xaatim nañu xaatim nañu xaatim nañu contrat yi le huit dañ koy bëri incha allah suñ fa yàlla yóbboog jàmm huit juillet suñ fa yàlla yóbboog jàmm ñu bëgg nag ne bëri ku ci nekk na li ma waxal sama mbër rek mbër yëpp laay waxal parce que nag doyen la dañu ànd ak yar ak ceeb bi li leen seen ménage wax ci contrat yi ñu respecté ko ñëw heure. bëri heure ki war a daan yàlla xam na ko yàlla noppi na démb tey soog a ñëw ki daanu ki daan jël akalaat ko ñu xam ne ñoo bokk lay ñoo bokk bàyyi Sénégal benn la du ñaar du ñett loolu fair play boobu dafa war di dem ci mbéy loolu mooy yóbbu làmb yi ci kanam waaye sànni de xeer buloo sponsor yi daw naan làmb violence te làmb dafa bëri wuñ ci parce que bay rek ci nekk moo ñëpp ñu leen dëgg bët bu la joxee xaalis balaa ngay yegg fa nga jël sa xaalis jeex ndax ñi ñaan bëri ñu gën a góorgóorlu xam ni suñu cosaan la ñoo ko moomal suñu bopp ma sàmm moomu ko ma def ko moomu làmb suñu cosaan la ñoo ko moomal suñu bopp te maa ngi nuyuwaale taskatu xabaar yi fi nekk parce que ñun taskatu xabaar yi bu ñu waxee ko gis comme la amet nañu fi nag ma bàyyi ko ba ci kanam xool li may toll kon ñu xam ne taxaw na fii ci restaurant Madiba ci signature contrat bi xam moo fi am d'abord dafa am lu tubaab wax toujours sama rajo dama koy rappelé man grand man maanaam tout César à César ce qui appartient à César. làmb daal war nañu kër tuuti si jaxate ndaxte lii mu def war na képp koo xam yaa ngi yëngatu ci làmb dëkk fi Thiès war nga ko sant war nga ko santal donc si merci. merci lii ngay defal waa waa waa Thiès ay manifestation yu ku nekk xam ne si. moom daf ciy def promotion bi ci wàllu donc ñu koy ñu koy sant vraiment di gërëm bu baax a baax. ñoo ñaanal jàmpaay ba Pape noonu laa ñaanal jàmm balaa ngeen mooy demandé loolu nag ñu ànd ak ñoom dañ xam ne xale yi victoire bi gën a Thiès gi rek la nekk Thiès gi rek mooy demandé donc waa tax donc ak waa Kersang nañ ko boole ak discipline ndax ñaar ay référence lañu waaw ay référence lañu référence la Alaaji Gaye référence la ku ne xam ne Alaaji Gaye dafa jàmm ndax ñu tey def li muy def di fulla bu jeex ma bëgg nag ñu ànd ak moom ànd ak papa yi vraiment ñu nekk boobu démarqué nekk ci boobu logique vraiment maa ngi maa ngi gërëm bu baax a baax a baax sax si jàllale ci ci ndànkoom ci vraiment ñu ñaan yàlla yàlla ñu jàllale boobu jàmm suñu le 8 juillet ba ñu Bambey daan xalaat ngeen jël bi sax am benn benn final ak coupe du monde final bu baax la loolu dañuy jël bu baax a wax dëgg yàlla suñu doyen la luñ bëgg luñ bëgg a wax lu doon rafet Pape Mbaye sama sama copain sama gars la waaye ñun alaaj ngeen lay yor ak booy jaxaw ak ñu wéy ñoo leen yor dañuy ñaan yàlla Pape Mbaye combat bi yàgg nañ ko dox dañoo daw a daw daw xamuñu fi fuñ jëm ñu doog a jël combat bi waaye li doon daw nag ñu ñëwee lu gën a métti lañ fi naat lañu fi combat bi di yomb xam nañ ne am nañ làmb ñoom buñ tëddee nañ nelaw loolu leer na leer na leen nañ alaaji gaynde ba ñoo ko gaynde ko daal ci jour waa seen jaxara xam na koy alaaj gay waa Thiès xam nañ koy alaaj gay xam nañ koy baax mooy lamb ñu dara neex dina am xeex dina am bu bëri ñu wax ñu waxati beneen combat bi nga xam ne métro euh, métro daa yàgg daa ñëw Thiès kii di boo jaxaw maa ko yor boo jaxaw di xale boo xam ne bu jugee jaxaw yëpp jóg moom mooy mburu jaxaw jaxaw mooy champion ñëpp xam nañ ba stade yi nekk jaxaw sax di koy jiitaloo mooy booy jaxaw ñu ngi ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm defal ko wér ak tànk ba jour boobu ñëw defal métro bagage di def ñëpp nee na doo buy doo si la moom mooy ji. entraîné ba ci lam sóoru say mag kii la mag ci làmb ëpp la doole dàq la bëri booy jaxaw waxal lu leer la du sore tudd dama am doole dama am doole la huit juillet daje ñëpp dama am doole le huit juillet di nga indi xeex wala bëri ngay ne lan nga naan loolu laa bëri laaj parce que dañaa wax bëri dóor làmb ji nekkee bëri bëri bu nekkee ñëw lu mën laa ko jël laaj lépp ñu ngi si lépp lu mu laaj ñu def lu mu laaj ñu def ko métro dama gisul yow sërët bu xale baa di bàkku rek nee na yaay yëg waaye nee bu mu jullee li nga xam si la Thank you. combat bi di ko di ko sant ko doyoo ñëwal ci combat ba la duma da daa neex de moom xale bi mu gën a tiim la ngay wax. neex na lool mais jour lamb la nga fexe moom dama lay def naa mu julli maa ngi ñëw. arbitre daal sifflé nga dóor Dóoró doon defee ko arrêté su dee ma yee baax gi daal naa yee avancé ma avancé. yaa ko dégg. ñun dellu gannaaw ma waxal ak moom du yomb. du ko yombal ñu dellu gannaaw. boo waa combat mu ànd sa bi tax di ko ko defam déet. 47 pour combat bi bëri sama morom bëri ko dóor benn coup bu dal wala mooy ñaari coup bu dal yoo xam daal wala lu sax. kubéet bi kubéet bi mën naa tóoroo xamuloo. benn coup laay dóor bu dal jeex na xanaa naa si su ma dóor ba léegi ginnaaw tontu na la. xam nga ngay teggee bi rek dem Touba. vingt-sept coups amul doole. ah vingt-sept coups jox ko dóor vingt-sept coups la daal. man wax dëgg yàlla jaaxal naa ko bëri. daal daal su ma dajaloon doon der rek. ah te moom de. bu nekkee moom bu may sàcc bi las.

ñoom a dañuy jàpp si loxo yi. ana Maodo Malick Mbaye. ñoom ñëpp dañ siy jàpp ay Babacar Pascal Zone ay ñoom Aziz Niane. waa Soleil Levant. sans leen di woo ñoom yaakaar naa ne wul woon lu Mahamad Bés. sama may bés bu ñu dugal seen loxo ay ñoom après ñaan. gars yëpp noonu lañ bëggee waaye seen bëgg. di gërëm waa Daara Dia. si leen di leen bëggee bu baax a baax di leen ñaanal combat bi yéen laa ko may. képp suñu tànnee seen motu kala. wala amee combat bi. def si ñaan bu baax a baax a baax. mbokk yi dégg ngeen koy joxaane mu nuyoo waaye li may bokk ci li nga xam mooy métro Alioune Sarr kenn du moom la ministre du commerce maanaam jàpp na loolu daanaan luy taxaw moo grâce si wóor leen seen a xam a sa président doon des fois une taille di woo Papis Diaw aussi di ko wàcc combat bu baax di woo sama sama garaay nekk moom di jël ku ci mel ni Tako Kani ku ci mel ni Salim Mbaye ku ci mel ni Baye Ndeye maanaam su ma limee damay juum ak Pape Diouf su ma limee damay juum Pape Diouf aussi maa ngi koy woo bu baax a baax a baax ma yàggal jàmm si combat kon ma bàyyi leen ngeen joxante loxo kenn ku nekk nag am na message bu la téye la ko nag ngeen bàyyi xool leen télé bi ta wax ci prestige bii ngeen jàkkaarloo di daal seen tubaab télé ko mujjee woote ak

jaa ngeen jëf mbokk téléspectateurs yi le 8 juillet lay doon ci stade bu bu ñu suri joxate woo rek fële waa Thiès waa yëpp la à travers le monde entier bis bi kenn du ko xaar ndax ñoom ñi képp koo xamante ne nii maa ngi leen di quoi di nga dajee ki nga xam mooy alaaji Kelle wala nga daje ki nga xamante si nii mooy mooy Pambay bu Assane boole ci final boo jaxaw luy tëj. boo Pape Louga borom télé bi ñëw dëkk moo naan yow lu des ba nga naan la gënal ma ñaari borom bi. asalaamaaleykum mbokki Thiès asalaamaaleykum mbokki Sénégal.

muy gala de lutte boo xam ni demi final la ak final bu ñu war a def pour permettre à ces jeunes de Thiès ñu war a mën a bëree le dimanche 8 juillet pour ñu def la première journée def demi final bi ci diggante ki nga xam ni mooy métro bu Jabaas moom mu war a bëre ak booy jaxaaw bu ñu paree Alaaji Gaynde ku nekk xam na ko mu war a bëre moom ak Pape Mbaye bu R100 am na foofu beneen combat aussi bu ñuy wax jaasi bër ak ki nga xam ne mooy jibi weñ gi ak yeneen sept combat yu war a am donc total bi war a nekk dix combat muy jour boobu nga xam ne moom mooy le 8 juillet suñu demee le 8 juillet ba bëree ba pare bu si bu neexee yàlla suñu borom ñu daal di jël ki nga xam ne moom moo gagné ñoom ñi gañ ñaar ñi gagné ci ñaari demi-finale yi ñu war a daje le 31 juillet maanaam pour tëj saison bi fii mais n'empêche man ci diggante bi dina am yeneen région yoo xam ne dinaa ko def ko ci feneen gala mais Thiès bi may tëj si waat samay combat daal maa ngi koy tëjee ci diggante ñaar ñi gañe ñaar ña gañe ci gala bii ñuy def nii ñoom ñooy bëree final ba ñaar ñi ñu gañe bëree troisième ak quatrième place ñu boole ci yeneen lutteur damay bañ lutteur Thiès sax defe ni ñoom fii nag affaire bi yam déedéet ku ci am nga chance pour mën a bëri ci ñaari gala yëpp parce que man dama fi di profité ci occasion bi pour jaale la presse ñoom ñi nga xam ne ñu ngi nii sama kanam tey di jaalee ku mel ni Jean Pierre Tine di jaale ku mel ni Ousmane Diouf mais di jaale aussi ku mel ni Max Maguette parce que ñooñu def nañu ci presse bi lu am solo ba pare nekkoon suñuy xarit nekkoon suñuy doomu lay ñu daan ànd ak ñuy def liggéey bii yàlla mi nga xam ne moo am yërmandeem dañuy ñaan yàlla dem mu yërëm leen ak leen ci yërmandeem bu baax may wax xaj na tey di fi guddal sax bu am solo bu ngeen gisee tey jëlaguñu parrain yi pour man leen a wax c'est parce que fi am parrain yoo xam ne dañu war a waxtaan ak ñoom tam pareegul bis boobu nag bis ci ne ci ñaari journée yooyu ay parrain lay am pourquoi ay parrain parce que journée bi ren dafa gàtt saison ren bi li tax mu gàtt moom mooy coupe du monde bi dafee dugg koor gi aussi dugg donc ñu perdre ñaari mois looloo waral a na xam ne daan naa ne seen journée individuelle mais dañ koy boole pour mu doon une grande fête de la jeunesse pour que public bi Thiès bi yëpp man ci am aussi bànneex bu am solo ñooñu nga xam ne aussi dañuy jàpp ne guddi ak bëccëg di ñu defal terrain yu ma sëkk ba ñoom ñoo tax làmp yi di egg fii bis yooyu la ñeen di woo ku ci ne am lu ñu la décerner ci benn drapeau pour mu doon fête boo xam ne une fête de la jeunesse la mooy wax ni ñooñu ma daan jàpp ne guddi ak bëccëg vraiment nañu préparé wu nga xam ne lii daal lamb lay doon loo xam ni lamb bu mag lay doon dimanche le 8 juillet diggante première demi-finale bi Metro bu Jobaas contre Boy Jaxaw deuxième demi-finale bi Alaaji Gaynde contre Pape Bay bu Ersan mu nekk journée bo xam ni kooku kenn dul ko fàtte jaasi pël war fa bëre moom it ci spécial bi mom ak ki nga xam moy Djibi jibi ak yeneen combat yo xam dinañ ñëw parce que dina am yeneen trois combats yu ci toppaat yo xam yépp ay combats spéciaux lañu doon ñu mottali lepp nak pour mo doon dix combats tey du ma mën a sori ci bés bi bu ngeen gisee aussi waxaguñu fan lañ koy defee c'est parce que dañu am ñaari stade yu ñuy bëree muy Maniang Soumaré ak champ de course damay bëgg a waxtaan ak staff bi ba ñu wax ma fan la ñuy bëree bu sooba yàlla bu ñu defee bu ñu wooree ba yàlla génn ñu jàmm ak salaam bi ba ñu wari bu boobaa dinañ def beneen signature protocolaire devant l'ensemble des parrains les lutteurs ak surtout managers yi ak la presse dans un cadre purement général bis booba di ngeen xam fan lay doon làmb ji mais sachez que ni daal Thiès la ñuy bëree gala boobu dimanche le 8 juillet. di gërëm la presse di wax ni maa ngi gërëm tamit bu baax Thiès prestige di gërëm Thiès 24 point com di gërëm Thiès TV.com, point com di gërëm Thiès info point com di gërëm surtout Thiès média mais surtout di wax ni nag la presse écrite comme la presse parlée si di jaxatee gi di gërëm mais di remercier suma xarit communicateur yi nekk fii. di gërëm si képp koo xam ne yaa ngi may jàppale guddi ak bëccëg suba ak ngoon rawatina sabu si di jaxati bii nga xam ne yéen a ngi leen gis nii ñu ma nekkandoo ak ñoom muy xale yoo xam ne ñu ngi may jàppale guddi ak bëccëg suba ak ngoon vraiment maa ngi leen di remercier bu baax ci ñooñu danaa ci tànn ñett rek ñu doon ambassadeur di sabu si di jaxati bépp damay jël ku mel ni Lamine Mbow vraiment di ko gërëm di ko sant di gërëm Isma Mbow bu baax a baax mais surtout di gërëm suma rakk bopp muy suma jabaat ñu koy wax set di wax ni nag Pape Doumbia vraiment dafa jël ay teraanga yoo xam ne def ko ci suma journée bi mënuma koo bañ a wax jërëjëf parce que lu ma defal la leneen lu bokk ak yi pour journée bi mën a jaar yoon pour xam ni ñi daan dafa am lu mu leen décoré Pape Doumbia maa ngi ko ci gërëm ci loolu nga xam ne defal nañ ko bu baax a baax a baax a baax waaw jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi wuré wa dem na kër waxi mag dem nañ jàlli bàgg war na mbaam ñu ngi jaajëfal bu baax la promoteur de la capitale de la ñu indil car macha allah dañ ci ñëw yéen léegi di neex na Bambay weer sans boole ñu jox alaaji Dendé ndar njëriñ mbokk yi combat bi boo ko xoolee xam ne combat bu Sénégal xiif gi combat bi kees gépp doon xaar gi nii Pape Mbaye ma bàyyi la nga nuyoo mbokk téléspectateur yi. waaw dañuy sant yàlla. tam incha allah alaaj benn maa ngi lay déglu. alhamdulilah monsieur Diagne dinaa leen sant yàlla di leen sant ñu ngi ñëpp di toog sant Pape bu baax. di waa Jalle bu baax nee nga comme maa ngi jógee am si yàlla may ndax waaw man daa ma jël bu rëy. ci yow laay jógee alaaj ngay wax kii sama daa jël avance am jaaree ko noonu sama yaay ma teraloon ñëpp ñu ndax taw nga am ci lu jëloon loolu lan moo waral loolu. loolu la loolu question la yàlla def na mu jël avance Bambey te André am na ay bantaaw. donc Bambey maa ngi ñëw dina tàng ci kanam tuuti xaar leen rek ñëwal defal la ko dina tàng. dugal sama diggante Bambey bàyyi ko ko ay kanam. mel na mel na ma dégg loolu am solo parce que moom nii damay am am jàngat trop am loolu tax tey làmb dañ ah, di xale. dëgg la. instant nekk suñu ginnaaw gis nekk suñu ginnaaw suñu borom liñ ci mën a baax ñu am ñu def lu si làmb ban toll si diggante ñu bëre wala bëri madame Mbaye ambulance Modou Mbaye seet si ma ma ne ko madame Mbaye ambulance saa sew moom mi xam na ni amul fi sax taxaw di bëre ma waaye nit ñi bu lay jay moo waral demee nii guleet ma dëgg alaa jigéen te amul seen maa ngi ñëw ci yow guleet ma dëgg loolu xaaral tuuti xaaral tuuti tuuti bon newal maanaam li combat la combat daw xam nga tax man na may bëgg nit kuy taxaw ñëpp di wax naan combat la combat man loolu laa gis waaye lan moo ñu boole damay ñaan suñu borom yàlla na yàlla mais ku xam fulla ak fayda nangoo entraîné ak jom bi ma doon indi si làmb ak état bi ma doon indi si làmb boo ñëwee maa ngi jox suñu bopp day yokk nga gisaat beneen Pambay si yokk na moom seen incha allah. alaaji Pambay wax na duubul fooy. kon xamal maanaam Pambay loolu la ci am. gàttaloo caméra yi. moom loolu la ci am wax mais bu demee ba ni gaynde gaynde alaaji gaynde ragal la war naa xoolal bu baax la nga wax. moo ko wax moo ngi. parce que démb la ñëw visite parc ba ànd ak manager bu muy amal jaay. visite fan. parc ba. parc à. parc à li ma xiiroo ñu ñëpp a tëdd. daa xëy na yaa ngi fekk am nañu yaa ngi fekk lu ma siy wax mooy ñun ñëpp xam nañ yow sax sax yow sax waxumaa bi waruñoo taxaw fi sax di wax waxuma mais yow luy gaynde sax luy gaynde sax jege woo lan la ko kii mën naa kaa jàppee kañaak ñaxa ñaawaayam bi allah yow yaa ngi xam loo fi mënoo bëre ba mu doole wóor naa lay wax xam nga la jàppee xam ne lépp dëgg na tàng rek maanaam yow yow ci wax nga mu nii yow wax nga yow nii damaa bëgg nga xam ne alaaji benn ngay bëreel bëreel ay dara bëreel ambulance alaaji benn ngay bëreel dafa lool sa bopp askan bi ñoo ko soxla yow doo gaynde nga xam ne du yow yow doo gaynde Serigne Bamba Mbacke yow doo gaynde wax nga do fi ala yow xam nga doo gaynde yow yow sa waa ko ñoo la jar mais doo gaynde alaaji alaaji yow loolu nga foog yow mën naa yow nga foog Serigne nga xam ne li nga tëgg laa xam. Sèye ak Oma laa xam. mooy bëri Pambay. booy. Pambay ñaar combat la bëri. mooy jël avance. Pambay ñaar combat la bëri. mooy doon def ay la doon def ay la doon xam nga génne naa ko lam te si ay signature rek la. ah aywa. dama lay wax rek. ngir yàlla wala si. ay la ay la doon ma si bopp nan nga def. yow bàyyi ko maanaam ma man de ko xam nga xam nga laa bëgg wax seet. muy la sama entraînement bi laa yaakaar. sama entraînement bi laa yaakaar Pambay. Pambay naa bëgg nga xam ne maa ko wax. ak yoon bi yàlla waaye loolu dañoo boole ñaari borom jom. ñaari xale yoo xam ne lamb dëkk ci am cër. waaye ñaari xale yoo xam ne saa yu nu waree. su elee Mambara jóg. Cité Senghor jóg. Baxdaad Diop. R100 R100 Diop. jàpp nga gën ñëw ànd ak moom fekk ca stade ba mu jëm. Mm-hmm. waaye xale bii nga xamante ne nii car macha allah mooy doonay Matar Mbaye ambulance bi. dëgg la bu jugee mën na fa Diop. kaw Sara kaw Sara kaw ngeen di màgg yëpp yóbbaale nit ñi Diop. moo tax combat bi man ku yeex. Mm. doo am foo toog. le promoteur de la capitale des Dira lu mu sa tëgg lii ci dàq. alaaji gën ñu bàyyi la nga a say damay sant sama papa bu baax di sant sama seen seex ak Habib ak Mambay di sant maam góor yow Fatou Diouf mu nga ba Mbour di ko woo moom jëkkërëm Pape Sarr man jàpp ko mbaax ba di woo sama papa Bombardier di ko père et l'homme lieutenant maa ngi ñëw léegi yaa nga suuf ñu jàpp papa yi defal ko affaire doo waa kër sëy nooy bu baax la parce que dañu sonn si man di woo bàyyi bàyyi laa nooy dama koy woo di dëgg léegi sële ma ko koy man maa ngi lay woo di dëgg léegi ma jaam jabaram woo bàyyi bàyyi daal kuy na ko fa woo si léegi léegi seen liggéey yëpp di woo Aliou Ndoye Aliou Ndoye daf may woo di woo Mor Kane di woo Baye Daawa di woo xanaa Aliou Seck ay dara balaa ñëpp bawuma kenn di woo nag waay waa daal di woo booy ak yaay maa leen woo di woo waa Araraay ko bawuma benn booy yàlla xam na seen papa yi dëgg la ko la jàppee ko dina baax li ma seen bokk baax seetlu naa la may sant yàlla bu baax ñaanal sama yaay mu yàgg sama papa maa ngi koy ñaanal yàlla xaar yoo xam daa am loo xam ni maanaam su amee rek am ñun ay doomu Casamance sama maam Aliou Badara Sadia Diédhiou lañ koy wax joolaa yu may dégg yëpp Aliou Badara Sadia Diédhiou ak képp ku dëkk Casamance ñinoo ko appula maintenant maa ngi dëkk Giraago j i a f a góor sama góor whatsapp bi nekk c a d a m a n c e Ersan Kees ak m b o u r waa Gambie maa ngi sant bu baax góor whatsapp bi dinañ ñëw si combat bi lu may indi kees booy defar daa baax di wax rek damay dugal kees amul ku fay dugal kees nekk mbër. waaw waaw waaw kon nag yow la kon yow la bàyyi ko jaxaw kon nag yow la. kon nag yow di wax rek parce que doo gaynde wax naa la doo gaynde. ay joola yow maa doon joola yow maa gën a doon joola ak ku. kon nag bu xoolee xam lu nekk laa doon. maa ngi lay dàggal sax lool lool dafa leer. damay sant damay sant maa ngi sant. lu ne la may woowee sant. jóg si sa jéeg wala boobu nga dëkk Casamance maa lay tàllal sama loxo ak ñu may ñaanal ñëpp. pour Gambe Kaolack Jaxaaw si sama dëkk yaay maa ngi leen di sant ak waa wallaahi lamb ji da ngay gis temporaire yi ñëw. ah bon si lamb ji. si nii. bu soo gis lamb kees si. bu am Kankura. incha allah Kankura ci la ñuy dul fi fanaan. mais fanaan la ñu fanaan ko ba allé les pare. Pape dama doon Pape dama dem dul fi fanaan. Pape dama dem waaw ménagère ne Ousseynou Kaye sa ménagère ne li nga jox nag am na ñoo avancé. te mu ngi ko tega foofu allé ñaata la. soo ko defee sa bopp. Mahmud dong menang. Bang Bayu ngomong itu menang. Kita bisa tahu. Bayu Musa ya Muhammad. Eh, Rasul tuh dulu dulu. Eh, ngomong loh. Kan gua orang sekarang lagi kayak di Bayu. Soalnya tuh kalau sopok dulu. Bang Bayu kiri gua. Kiri gua. Demar kiri gua. Kiri gua. Kiri gua. Kiri gua. Tahu loh, tahu loh.

sant waa kii dans di woo sama papa bu baax di di woo sama papa di woo Fatou Diouf. di woo sama papa Sarr nga jàpp si béy bu baax di woo sama tante Thoudia nga jàpp si béy bu baax maa ngi woo Baye Daaw Ndoye Mohamed Ndiaye Mor Daaw di woo sama yaay booy yi bawuma kenn waa ANACIM ñëpp maa ngi leen di yàlla may ñu ndam kaw Bambey xoolal jël bu amul benn warante. yàlla na joxataloon na ko. ngeen di jàppale. jërë ngeen jëf mbokk téléspectateur yi gis ngeen ko noonu. nga xam ne si ni mooy moom la ñu bas. yor yëre wolof bi noonu. kële mu jàkkaarloo mooy Modou Lo di ménager ki nga xam mooy Boy Diakhao si di jàppale promoteur de la capitale raay defal leen combat bu rëy ñu décortiquer ko maanaam di def li nga xam mooy scientifique décortiquer kenn ku ne xam naa nag ñu ngi ñëw kenn ku ne di nga dara ndax ñu ngi def li nga xamante si mooy scientifique de contrat bi lii nag mbokk yi bu ngeen ko gisee ci wàllu lamb mooy moo leen liyee li mooy tax mbër bi yootul bëri te am na foo xamante ni lamb si di jaxate ci diggante booy jaxaw ak mëtër bu noonu jobaas le promoteur de la bi ray kat moom moo rek sa combat bi waaye mbokk yi Prestige TV en gisagu leen kenn déggagu leen kenn seen soppe Seck Ndanane li ngeen bëgg doon ko xaar moom rek moo leen koy wax ànd teg sama cameraman Myriam Diallo Assane xool gis ngeen ko noonu secrétaire secrétaire permanent Serge gis nga ko noonu moom xaatim rek la ma bu jugee fii dina ak ak am ñi nga xam mooy ménagère ci loxoom lay jaar fi ne dem ci ñi nga xam ne si moom la ñu bëri bu ko defee bëri na tënku ci kayit xam ne nag am na combat ca date ba nga mbokk yi teg leen seen baaraam nga demal leen ci table ji lépp lu fi tukki waat rek ñooy saal bu xam ne yëpp kooku ngeen jàkkaar lool Anthony Mois son njaxas bi kooku mooy sec promoteur manager ki nga xam ne laa ci gaynde def ni nag accord baa ngi nii seen Fall secrétaire permanent bi gis ko noonu muy xaatim ci dugg di xaatim li nga xamante si nii mooy lieu diggante laa ci gaynde ak Pambay gis nga leen noonu ñu ngi leen ñu ngi leen ñu ngi leen xaatimal li nag mbokk yi boo ko gisee da ngay xam ni combat bi taxaw na le 8 juillet la incha allah rabi si di jàpp le premier de la capitale lii nag bu xasee ba am rek na bu réew a dem na mu waxe ba mu tax na jàll bàkk war baam seka ngi noonu jàkkaarloo yor moom itam bu bu secrétaire permanent noppee rek moom ngay jox moom it mu rëdd bu rëdd rek mooy bal bataatam bu ko defee alaaj kenn ñu ko def fekk mbokk yi nii nag lan leen seen sopp secrétaire bi loolu ci lamb presse diggante gi nga xam ne métro bu bu Notto Diobass ñu jox ko ki nga xamante si nii mooy Boy Diakham war na leen lépp loo xam ne moo tënk seen diggante waaye tamit toppal leen ki nga xam mooy eh, Alaaji Gaynde bu bëgg sa wàddi ñu jox ko ki nga xamante si nii mooy Bambey wala Samboro ñoom it war na leen li nga xamante si nii mooy liggéey xanaa rek di ñaan yàlla si laaj quoi le huit juillet mu woote boobu rek mbokk yi téléspectateur bi di ñaanal bu baax ñi nga xamante si nii julli ndax ñu jëm nag ci weeru koor ñu gis lu sell lu weer woo xam ne macha allah jur ñu ci bénéfice wu ñu ñaan suñu borom lépp loo xam ne def jaam nañ ko suñu borom nangu ko bu ko nangoo wisaare ko ci àdduna bi ñëpp jëriñu ci ndax Seydina Muhammad mi nga xam ne kat moo waral loolu lépp moom ak maay wees na ko comme ñu ngi ñaanal fi yëpp di leen ñaanal ko jàmm bu ñu tëjee nag le de la carte de la si jàpp le juillet moo woote contrat la ko mbokk yi teg foofu seen baaraam nag ak seen seet seet naa ak